Le journal de la Fayda. journal de la Fayda. journal de vous écoutez le journal de la Fayda. ngi déglu seen journal de la Fayda. juróom-ñetti waxtu jot na ba teg fanweeri simili tey la dibéer ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mars atum 2023 yéen ngi ànd ak ñun ci chaîne chaîne YouTube bi la Ibrahimya TV l'univers des Barhamiens première chaîne francophone de la Fayda eh, yéen a ngi ci ñaar fukk ak juróom-ñaari li tomb le journal de la Fayda asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziara di jéggalu ci gëjee gi di leen a xamal ne nekkul woon na ci sunu coobare waaye ñoo ngi am mbégte yenn ci xibaar yi ci faydu bi eh, tàmbalee ko ak bopp xibaar yi Medina bàyyi def nañu lancement concours prix international Ibrahima Niass ci tarim alquran keroog talaata ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars atuma 2023 la ñu ko doon amal Medina Baye um nañu eh, koor gi keroog alxames ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars atuma 2023 eh, Cheikh Basir Niass di ñu xamal naka la Baye Niass doon dundee weeru koor. ñu jeexalee ko ak seen yéenekaay bi di ñu wanale ak Serigne Omar Fati Diallo Niass na lépp bàyyi na lépp bàyyi na lépp bàyyi yaa bàyyi ñas yaa bàyyi ñas yaa bàyyi simila ñu tàmbali yaatalu xibaar yi dem te Medina Baye ci ndigalu xalif général bu Faydu Tijaani Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass door nañu concours prix international Cheikh Ibrahima Niass ci karim alquran ak keroog salaata ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars atum 2023 Ah, ña bindu ngir ca jongante ba toll nañu ci téeméer ak fukk ak juróom-ñaari xale lu toll ci ñaar fukk ak benn million la ñu jagleel la neexal ya concours bi nag ah, Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass Al Khalifa moo ko ah, taxawaloon na ci atum 2013 ba noppi dénk ko rakkam ja Ah, Mouhamadul Malick Cheikh Ibrahima Niass ngir mu taxawee ko ren nag mooy fukkeelu édition bi fukk ak juróom-benni eh, fukk ak juróom-benni réew ñoo ci bokk bokk na ca réewum Espagne réewum France Égypte Côte d'Ivoire Bénin Mauritanie Maroc Kenya Gambie Ghana eh, Sierra Leone Congo Centrafrique Nigéria Niger ak Sénégal ca ubbite ga ay kilifa yu bëri jóge nañu bitim réew ngir teewe si ko. Cissé neexal yéen nag nii lañu ko tëralee ci jiitu dina am fukki million ci jël ñaareelu place ba dina am juróomi million ñetteel ba dina am ñetti million ñeenteel ba dina am ñaari million juróomeel ba dina am benn million bu ñu boolee lépp mu doon ñaar fukki million ak benn waaye am na yeneen neexal yu leen di xaaral rawatina Ah, ñenn ci xale yi jigéen yi nga yu ci gën a ràññeeku doonte bokkuñu te nga jiitu concours bi nag képp koo xamante ni génn nga ca dina la maye nga mën a bokk ci yeneen concours tari alquran ci àddina bi tey ñu def ca Medina Baye um nañu weeru koor alxames ñaar fukki fan ak eh, ñett ci weeru mars atum 2023 Cheikh eh, Basir Ñas di ñu xamal naka la bàyyi doon dundee weeru koor Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Ñas ku jeexoon ci alquran mosula gëm lu dul woote ko yàlla bokk na ci ñi doon gën a xeexal sharia sunu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi a tàbbe waxtu julli saa yu wuute waan na ci jumaa ji dafa fekk mu wéradi wala mu nekk ci tukki loolu kilifa yi mu nekkoon yëpp sedde nañu ko bàyyi daawula tukki ci weeru koor ah, te moo doon jiite mbooleem waxtu yi moo doon jiite it wasifa bàyyi dafa jeexoon na ci yàlla ka fa yonentam ah, ba noppi tabe Baay dafa doon sàmmante ak koor ba noppi di ko digal ay taalibeem weeru koor nga xam ne weeru njéggal la ak joxante Baay da ci daan bind ay lettre di ko yónnee kilifa diine yi di leen ñaanal kooru jàmm weeru koor mooy weer wi ko gënoon a neex bu xëyaan daf daan teel tàmbali daf daan suba teel daf daan tàmbali di jàng alxuraan ba tisbaar jot mu dem julli ji bu delloo ci kër gi wéyal njàngum alxuraanam ba tàkkusaan jot mu dem julli ji tàkkusaan ba noppi eh, wasifa ca jumaa ja la doon nekk ba timis jot foofu la doon doge ba noppi dellu ca kër ga ngir eh, waajal naafila bàyyi lépp lu mu eh, xëyaan jàng ci alquran bu guddi jotee daf koy tari bàyyi bés bu yàlla sàkk daf ko doon naafila waaye weeru koor rawatina ci Ah, te daf ko doon defee ni ko eh, nit ki ni ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, digle ba mu jeex tàkk kaamil bi la daan naafila loolu mooy eh, wéy Medina Baay ba léegi Baay ku ragal yàlla la woon lépp lu mu amoon da ko doon joxe ba mu jeex léegi nag li gën a doy waar mooy ah, ñi joxe ni ñuy joxe sarax bu ñu sukkandikoo ci alquran ñàkk daf fi daf war a jeex nga bàyyi daawu la denc xaalis la ku bëggoon na boppam la niki ni ko jullit bu baax di defee ah, dafa bëggoon na réewam rawatina Kaolack ak li dëkk ba di tàng yépp dafa doon def mbooleem waree fi kooram ba noppi ah, di ko digal ay taalibeem di leen digal it ñuy julli di liggéey ah, di joxante di dimbalante waaye ku bëggoon na sutura la Ah, daan na wax lu bëri ne képp kuy dem ci penk di jox di fa joxe sarax eh, wutuloo ci yàlla waaye ay padd nga ci wut loola te loola payug yàlla nekkul ca Baye dafa doon digal taalibeen yi ñu oor waaye ñu ooral seeni cër eh, ni ki ni ko alxuraan ak hadiis indee Baye doon moytandiku loolu bëri taalibe yi daan leen wax na ñàkk lekk ak ñàkk naan lu néew la eh, ci li yàlla digle ci koor Euh, ci wàllu dundam bàyyi daawul sotti lekkam li réew mi doon lekk rek la daana dundee ni ki lu mel ni laax ak cere ak yenn ni toggi réew mi bàyyi tàndarma la daana doge ak ndox te loola ci jumaa ja la ko daana defee bàyyi dafa doon digal taalibe yi ak mbokki jullit yi euh, ñu def seeni ñaan ci ñaar fukkeelu fan ci weeru koor euh, ndax bésëpp nangu ñaan la ci ñaar fukkeelu fan ba ak juróom ñaara dafa doon Eh, dajale taalibe yi ci guddik laylatul qadri ci jumaa ja ñuy sikar eh, di tudd yàlla di tagg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba fajar jot mu jiite leen julli ko suba ba noppi dellu këram eh, Baay dafa doon digal ay taalibe na ci ñuy teel a ngir julli ndax waxtu woowu waxtu nangu ñaan la rawatina ci weeru koor Baay nee na teel a wax bismillah ba noppi lekk doomu tàndarma nan doo ko sant yàlla tàmbali sa kooro loolu eh, li ci nekk ci yiw apul eh, jeexalee ko ak ci ñeneen kaay bi di ñu wane ak Serigne Omar Fati Diallo Niass Serigne Omar Fati Diallo Niass Amat Mati Niass mooy baayam amoon Mati Niass rakk la ci maam Alhaji Abdoulaye Niass al Kabir Serigne Omar Fati Diallo Niass mi ngi gane àddina atum 1912 ca ñeseen wàllo bi muy nekk tuut tànk la ñàkk ay bëtam wax na ne xamewul kulóoru deret ak kulóoru meew nee na ay wayjuram dañoo bëggoon mu jàng alxuraan waaye mu am jàng mu baax ñu daal di ko jox maam alxaaji Abdoulaye mu dénk ko kenn ci ñu ko doon jàngale la ca daaram ja ko doon wax Abdou Mati Thiam xel mi ko yàlla mayoon tax na mu teel a alxuraan ak yeneen xeeti xam-xam ci atum 1922 bi maam alxaaji e, génne àddina fekk na mu am fukki at boobu e, mokkal na ay saar yu bëri waaye bi mu am fukki at ak juróom-ñett ci la tari e, gannaaw ga la ko bàyyi jël jàngal ko xam-xam moo ko jàngal fiq moo ko jàngal naxu moo ko jàngal siira ak yeneen xeeti xam-xam bàyyi daan na ko ñaax daan ko wax na ko sama baay moo la jàngal alquran Ah, man maa lay jàngal xam-xam ma jàng nag du dara lu dul dégg ak takk Serigne Omar Fati Diallo ca baat bu neex ba ah, bokk na ci ñi doon sikar gàmmu Medina Baye dale ko ci atuma 1929 ba 1975 dafa mokkaloon woy ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Omar Fati Diallo Niass ca njëbeenu faydu bi bu ñu wasifa waan ba noppi bàyyee daan na ko sant muy woy di tàgg Cheikh na Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu ci fukk yi njëkk soobu ci faydu la bokk ca koosi bu daan melal la Baye Niass daan wax ne Baye Niass gannaaw bi mu doonee xutbu di xalifa Cheikh Cheikhu Tidiane ku mënoon a taalif la muqaddamu Baye la woon sëriñ la woon taalifkat la woon woykat la woon fent na ay taalif yu bari di ci tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa di ci tagg Cheikh na Cheikh Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu ak sëriñam Baye Niass bokk na ci ay taalifam inna cheikha tijaani foofu daf ci tagg cheikhu tijaani jaan jaam jaamu leen seen borom barhama baahun waraahun ak yeneen i woy ci dundam royukaay la woon ci gàmmu moo xam woy la moo xam waxtaan yàlla moo daan gàmmu gàmmu jëppal doon gàmmu gàmmu gannaaw raaya gàmmu géejawaay gàmmu ngiije gu lingeer gu fuuta ak dëkki dox yi ci biir Saalum gu Banjul ak gu Serekunda ak feneen ak feneen gàmmu jëppal ci atum 1963 la ko ko bàyyi joxoon na ngir mu def ko ah, ci teewaayu bàyyi la gàmmu gàmmu gi ba mu jeex ba gàmmu gi jeexee bàyyi gërëm ko Serigne Aliou ndokkeel ko di ko tagg naan ko na waaw góor Omar ja gàmmu nga gàmmu gi ah, ba mu jeex te yàquloo ci dara. yooyu yi leen mooy xibaar yi leen doon digtal ki leen ko doon defal di seen mbokk Cheikh Ahmad Tidiane bi tey di eh, gërëm Malick Ibrahima Mbow ci xarala gi di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di ñaan yàlla yal na yàlla may ñu ko mbalew te yaatu loo xamante ni dañ ci liggéeyal Mawlana Cheikh al Islam yàlla may ñu gërmande bàyyi mbëggeelam ci zaahir ci baatin